بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا موكي تذكرة الطلاب بعلم الإعراب نيوغ لنا نيوغ لنا زيارة بنيام سنو برمي تبارك وتعالى مدفع جن توفيق سلفا نخل نقف بنيوات جن دي أقل فانا خمنا فلان يمون كي قصير دو سنديد لخمنا كن كي ورم خم خمي كن كي كان قبل سلامي موقع تأليف دي الإمام أحمد أبي المحامد أحمد بن محمد بن حبيب الله السنغالي ñu gën koo xamante ne Cheikh al Xadim alayhi ridwanullahi tabaraka wa taala abi Saleh Serigne Touba kon ginnaaw boo ginnaaw boo xamante Serigne Touba def na ay tawasulaatam gis nga ñam tàmbale tawasul ci yonent bi alayhi salaam ba mu jógee ñëw ci yonent Ibrahim ba mu ñëw jaar ci yonent Yàlla Saleh Shuaib Xadir Ismail ba mu jógee ñëw ca yéefar ñëw ca malaaka ya tànn ca ñeent ba mu jógee ñëw ca saxaaba ya da waaye daal di daal di daal di pérénité ñeent lu mu ci jigéen ñëw ci taabiina ya gaañu baax ña ñëw ci taabiina ya daal di tànn ñeent al imam malik al imam shafii léegi nag mi ngi wax li mu ñaan boromam lan la bokk na ci li mu ñaan borom mu ne waftax lana kulla baabin kunta fatixahu li salihina min alxayraati yallahu suñ tubaab nee na waftax lana yow yàlla yàlla yow yàlla nag ñu ubbil naamam day day ñaan boromam tabaraka wa taala xam nga waftax bu dee ci ñu jàng naxu nag comme que dañ koy gàttal ñu jàng ñu jàng na xaw fi'lu amr ku ne xam ne ne mooy digal waaye yàlla des ko digal ndax ci ci ilmul maani ci balaaxa mooy ki ngay bu fekkee ni kooku moo la féete kaw la nga koy digal bu fekkee jëfandikoo ci moom fi'lu amr loolu la wax iltimas mooy da nga koy sàkku ci moom rek wala su su'aal boog laa bëgg su su'aal bu fekkee ki ngay digal ñaar tooloo jegele loolu ñu iltimas mooy da nga koo ñaan rek bu fekkee ki ngay digal nag moom yaa ko féete kaw loolu moom loolu mooy fartaal comme ni yàlla li muy digle naam عفوا وافتح لنا عليكم السلام waftax lana yàlla na nga ñu ubbil mi ngi ñaan boromam bayit bayit bii waaj ñëw suñu borom suñu tubaa li muy waaj ñaan boromam moo di yàlla ubbil ko bépp bunt boo xam ne yàlla nit ku baax nit ñu baax ñu jàll ñëpp ak ñi nar a ñëw bépp bunt nit ku baax moo xam ab wal wala ab wala ab taabii wala ab wali wala nit ku baax suñu tubaa li bokkoon ci li muy njëkk ñaan moo de yàlla bépp bunt nag nag ñu ko ubbil waftax lana nag ñu ubbil kulla baabin bépp bunt boo xam ne kunta fatixahu ubbiloon nga ko li saalixiina ñeel gaañu baax ña min al ci bunt yiw ya ci bunt yiw ya ci bunt yu baax ya yow yàlla yow yàlla na yow yàlla bépp bunt boo xam ne euh, bunt bu yiw la te boo xam ne mas nga ko ubbil ku baax ci jamono nag ñu ko ubbil وافتح لنا نان يوبل كل باب بكم بو خامني كنت فاتحه مسون غوكو اوبل للصالحين نيل ني باخنا من الخيرات كي ايو يلا يو يلا كون يلا دال نان يوبل بيب بونت بو بيب بونت يو بو خامني مسون غوكو اوبل نان غوم سولو بوكي لب بيب بونت بو خامني مسون غوكو اوبل باخني ولا ولا يالا ولا يونتي ني جار فا موي بونت بلو يو نان نكو اوبل واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله wasluk binaa sun yàlla wasluk binaa wasluk binaa nag ñu jaarale wasluk binaa mooy nag ñu jaar wasluk mooy firi nag ñu sóobulee nag ñu sóobuloo waaye ci olof bu gën a leer mooy wasluk binaa nag ñu jaarale yow yàlla nag ñu jaarale nahja rushdin yoonu ak njub wax fi naa te ñu fegal zalalan ak tarxiis waaw kay suñ tubaab maanaam da suñ borom yoon wi nga xam ne mooy yoonu ak njub yoon wi xam ne arab bi tegee adduna njëkk adduna alaxiram njëkk nag ñu fa jaarale wax fi naa nag ñu musal zalalan tarxiis nag ñu musal ci tarxiis mooy wàcc mooy tarxiis mooy lan mooy wàcc yoon wa xam ne boo ca jaaroon rek mën nga am man da ngay mucc adduna ak alaxira kon sun sun tubaa nee na wasluk bi naa nag ñu jaarale yow yàlla nahja rusdin yoonu ak njub waqfi na nag ñu fegal nag ñu musal zalalan ci tarxiis وطرد لنا نن يدقل الجن جنه وشيطان الشيطان شيطان يا الله يا الله يوسن برم توسع على كن بي بي نيار نيان نتي نيتي بير أه، بير مو نجي موي يالا جار لا ني تك نيو يون وغا خامني مو يون وغا خامني كو جار ام تي خك ادنا ام تي الاخره نيارل مو يالا فغال ني سي ترخيص نيتل مو يالا داقل ني جن شيطان كون خامني بلو مي ادمي لي لين لي لين ياقال اك لي لين غالانكور اك ني تخ ني دم تاور الك برب نعنا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن شيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكم أهل من حال سعيف آه، دون آدم أيه سيد بجي ألك تخي بني نار شيطان شيطان كوار الجنة جنة دين جنة ما آه، شيطانه وعينك بكون يوم أمن دفران modi di bepp shaytan cheytaane boo gis jinne la waye du bepp jinna boo gis la da ma xam bepp shaytan boo gis jinne la waye du bepp jinna boo gis cheytaane la eh, manam shaytan ak jinne ci cosaan bi la même ben bi la waaye ben cheytaane ben ben xet la bo xam moy jinne yi dëng yi nga xam ne dañoo féetéer ngir gàllankoor doomi adama ak eh, yakal ko eh, ba par nak bokku ci njabotu iblis ñom lañu wax ak ñi nga xam bokku ci catégorie ñom lañu wax al jinn waye nak nañ xam ne shaytan iblis joom la woon sun borom ci suru kafi nee illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih nee na iblis jinna la won loolu mi ci suru kafi fam fi day gëna mata rek da na yàlla nag ñu dakal jinne shaytané shaytané yi nga xamne dañu ngir yakal doomi adama ndax shaytané ci suratu hujurat wala ci suratu subhanallah azim ci suratu al hijr la la waxon yàlla fa bi izzatika la uxwiyannahum ajmain illa ibadika minhum mukhlasin قال فالحق آه... نعم yow yàlla kat jub naa pour sa jaam ñoo dugal leen sawar jub naa pour def loo mën ngir sa jaam yi dem sawar kon moo tax suñ tubaa daal di daal di ñaan watur na nag ñu dàqal al jinna jinna wa cheytan cheytan yàlla kon bayit bi suñ mu njëkk bi di yàlla teg ñu ci yoon waa nga xam ne mooy yoonu njëpp bu ñaareel mooy yàlla fegal ñu musal ñu ci tarxiis wàcc yoon bu ñetteel mooy yàlla dàqal ñu jinne cheytaane naam مدرك وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله فالو جاي سين فالو فالو جاي بيت بيدك de ko جامل بري بري bari bari watur dana jinna wa ndax bay la bo xamne ki doomi aadama yi war nañ ko jàng ndax doomi aadama yi li len sonu jamono yi bokk ci ci gënal moy rab rab ak jinne rab nak moy jinne ba tay dañ ne rab moy jinne doomi aadama yi bokk li len gëna sonal di len tak ay galan koor di len febar lo di len tayal lo den ah, di leen teg ay gàllankoor mooy jinne waaw léegi nag jinne yooyu nag dafa daa ñaari foo dafa am jinne yoo xam ne mënut a teqale yow ko ruñu xarin jinne jooju moom na nga ñaan yàlla mu musal la ci rek wala jinne ji mujj mel na yow am jinne yoo xam ne mën nga cee mucc bokku mooy jinne yoo xam ne dañu pour yàqal la li ma dem daal bayit bi bayit bu am mu teg ci wa kammilan kullama nanxu wa naqsiduhu wa hab lana kullama naxtaaru ya allahu wa kammilan na nga mortal yow yàlla kullama lepp lo xamne ne ñang jiblu koy jublu wa naqsiduhu dañu koy jublu nan xu wa naqsi nan ak baaru wa naqsiduhu ñoo bokk leen ñi firi nan ñang koy jublu wa naqsiduhu dañu koy jublu subhanallahi azim xol ñaan gu am solo gi wa kammilan kull bu bàyyi dara wax kammilan nga motal yow yalla kullama lepp lo xamne ne ñoo ngi koy jublu wa naqsiduhu te it ñoo ngi koy jublu yow yalla lepp lo xamne juk nañ jëm ca ñu ngi koy jublu mo xam lu bëgg la yalla nga ko mottali ko motalé waaw bu mu doon loo xam ne dañ cay dugg ba ci ak ma ak échec dérit kon bayit bi euh, bu do ko yàlla nangulee rek mooy yàlla muccal na ci échec lépp lo jublu rek sun borom tabaraka taala la koy mottali fekkee da nga jublu jaamu yàlla fekkee da nga jublu ak mbaax da nga tamon jenn aada ju bon jublu ngir bàyyi ko ngir xeex da nga tamon dara wala nga jublu ci mbiri aduna yi nga xam ay soxla la moo ne sun tubaab ne wa kammila na nga mottali kullama lépp loo xam ne nan xaw ña ngi koy jublu nax sudu nañu koy jublu wa la naa nag yow yalla kullama naxtaaru lepp lo xamne ñing koy choisir lepp lu choisir choisir mooy lépp lu ñu tànn rek lépp loo xam ne moom lañ moom lañ bëgg yàlla yow yàlla kon wa kammilan kulla ma nanxu wa naqsiduhu wa wa wa hab lana kulla ma naxtaar yooyu yàlla kat nang ñu may lépp loo xam ne ñu ngi koy jublu yàlla nang ñu ko nang ñu ko mottalil waaye nang ñu may lépp luñ tànn mu teg ci warud lana kulla di saabin wa di xaranin wa yassiran kulla di taasir yallaahu warud lana yow yàlla nang ñu tàggatal tàggat nag mooy yombal dégg nag ñu tàggatal kulla di saabin lépp lu jafe wa di xaram yi ak lépp lu tëx yow yàlla lépp loo xam ne dañ koy lijjanti mu daal jafe dañ koo bëgg mu jafe ci ñun moo xam dañoo bëgg jaamu yàlla mu jafe ci ñun dañoo bëgg tuub dañoo bëgg génn ci yenn aada yu bon mu dañoo bëgg dara ci àdduna mu jafe ci ñun lépp daal loo xam ne lépp loo xam ne dañ koo bëgg lépp lu jafe rek yàlla nag ñu ko tàggatal maanaam lu jafe loolu nang ko tàggat ba mu yomb ci ñun ويسرن نغ نيو يومبالال كل دي تاثير ليپ لو جافي باي بي دانيكا نياريب يا الله يا الله خابو نيك وي معنا بامي تيك خابو مو جيو تامي نيم نيا نيو بوكي ورد لنا نغ ني تاغاتال كل دي صعب ليپ لو جافي وذي حرج اك ليپ لو تخ ويسرن نغ نيو يومبالال كل دي تاثير ليپ لو جافي يا الله يا الله يا الله يا الله ليپ لي بروم جافي ديك يا الله ليپ لو خامني دا فا ليپ ليپ لو جافي ولو تخ ني واي ساخ مو جافي نيو نغ نيو يومبالال mu rek ñaan gu am solo tawil lana umrana saxix lana badanan wahab lana rushda wa tawfiq ya allah tawil lana nag ñu guddalal nag ñu yàgg nag ñu guddalal umrana sunu dund yàlla nag ñu may dund bu nag ñu may gudd fan tawil lana na nga guddal umrana sunu sunuy fan umr dund lay firi waaye ci wolof bi gën a leer rek mooy umrana mooy na nga guddal sunuy fan maanaam nag ñu bàyyi ñu dund lu bëree bëri saxix lanaa yow yàlla nag ñu wéralal badanan suñu yaram nag ñu wéralal aw yaram wow ñeel nañu maam yaram daal la bëgg a wax wa saxix lanaa badanan kon fii ba xab woow suñu borom suñ tubaa radiallahu taala daa ñaan suñu borom ñaari mbir mbir mu yaram ñaar yooyu doomi aadama yi moo gën a bëri ci leen seen làmb ji doomi yi xam ne ay awam lañ da nga gis ñaari dañ koy soxla mooy dañ koy wax lu bare bare mooy gudd fan ak wér yaram moom la suñu Tuubaa tënk ci bayit bi nag tawil lana umrana saxix lana badanan tawil lana nag ñuy guddalal umrana sunu dund saxix lana nanga ñu wéeralal badanan suñu yaram maanaam tawil lana umrana nang guddal suñu fan wéeral suñu yaram babar nag teg ci wahab lana rusda nag ñu may ak njëpp wahab lana nag ñu may ak rusda ak njëpp wa tawfiq ak tawfiq yàlla yoo yàlla mbokk yi lan mooy tawfiq tawfiq ba tawfiq ñu bari dañ koy wax te xamuñu la muy tekki tawfiq mooy lan tawfiq mooy suñu borom yombalal ak jaam yàlla maam jaamu yàlla yomb la ak moy yàlla jafe la loolu mooy tawfiix mooy maana la hawla wala quwwata illa billahi al-ali alil azim tawfiq moy xam nga doomi adamay yi jaamu yàlla ñoyam kep ci sun digël bi len sun borom digël waye leeg nga gi joomi nit ko xamne ne jaamu yàlla da ko yomb lolu ngir mu juk nafila nafila sun borom da ko yomb lolu ngir mu génn ci alalam joxe da ko yomb da yomb ci mom lolu comme comme ndoxum naan kadalika dimbali ay doomi aadama yéwénal ab diggante xeetu jaam it maanaam lépp luy jaam yàlla mucc ngi sa maanaam def ngir jëm yàlla mucc ngi sa yooyu yëpp da koy yomb lool am na ñoo xam ne day da leen yomb lool ba pare nag def bàkkaar bàkkaar da leen jafe donte nag muccuñ ci bàkkaar waaye nag def bàkkaar da leen jafe rarement lañ koy tàbbi mbokk yi loolu mooy tawfeex tawfeex dëgg mooy suñu borom taala moom mi la sant moom mi la sant ak jaamu yàlla pare mu ñoo ñu jàppale la ci maanaam suñu borom daal lay dëppaleeg jaamu yàlla ba pare nag sor laak ak mooy borom bi tabaraka wa taala dëppal laak suñ borom daal lay yombalal daal lay yombalal daal ci yow nga xam ne def lim bëgg da lay yomb waaye def lim bañ da lay jafe loolu mooy tawfiq ku ko yàlla may rek am bi gën a leer am na yeneen maanaa nag yu gën a kii euh, léegi di dañ koy firee ku jub koo xam ne suñ borom dala dala yombalal yoon yi jaar ba ma a am xam-xam yoon yi jaar ba mën a yindeeku xañ la yoon yi maanaam yo xañ la yoon yi jaar ba ba réer yëpp ci tawfiq la bokk tawfiq daal mooy suñ borom yombal la tàggatal la yoon yi jaar ba àgg ci ngërëmam moo xam ak jaamu yàlla moo xam xam-xam ba pare nag euh, yoon yi xam ne moom ngay moom ngay jaar ba àgg ci la muy bañ suñu borom da koy defal ci yow loolu ku ko yàlla defal defal nga tawfiq yàlla nga ko yàlla defal tawfiq lu am solo la moom la suñu Tuubaa ñaane wa hablana rusula nag ñu may ak njub wa tawfiq ak tawfiq yàlla yow yàlla suñu Tuubaa ci ñaan yi ci ñaan yi am solo yi ba tey mi ngi continuer di ñaan wa dammiran kulla a'daa'in tudirru bina qabla alwusuli lana yallahu yallahu dam dammiran sunu borom yow naga nga mabbu kulla a'daa'in bépp noon boo xam ne tudirru robina daa ñëw ngir lor ni ah il kon bu dee fële gudd fan la doon ñaan bayit biñ génn sànq gudd fan ak wér yaram ak njub ak tawfiq fii nag li muy ñaan mooy bépp mucc noonu ku ne xam ne ni suñu tubaab yi muy ñaan yëpp doomi aadama da koy soxla moo tax doomi aadama xes de gi baax naa di jàng lool di ko teewul di xam ne am nañ bayit bi nga xam ne ci lañ toll Sëriñ Tuubaa lim ci bëgg ñaan moo di mucc ci sam noon képp koo xam ne sam noonu koo xam ne daa jug ngir lor la moo xam ay noon ñoo jug ngir lor lor lor ñu moo xam noonu lu mel ni noonu jullit ñi nga xam ne yéefar ñi nga xam ne ni ñuy jugee ngir lor jullit ñi wala sax noonu ci jëmam moo jug ngir lor la nam lay lor rek benn daa ñëw ngir lor la mubasharatan directement wala dafa ñëw ngir lor la léegi maanaam mm, ngir lor la jaar ko ci lu mel ni njabar gi demee loolu xeetu loolu mën doon moom la Sëriñ Tuubaa di jàng wa dammiran yow yàlla na nga mabbu kulla a'daa'in bépp noon wala jéppi noon tudirru bi naa boo xam ne dafa jug ngir lor ñu tudirru bi naa koo xam ne dafa jug ngir lor ñu na nga ko mabbu yow yàlla qablal wusul la naa ba qablal wusul la naa bala moo ak ci ci ñun yallaahu yow yàlla yallaahu yow yàlla ah yow yàlla maa ngi lay ñaan yow yàlla wax ñaari yoon yow sunu borom tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan bépp noonu boo xam ne dafa jug ngir attaqué ñu ngir lor ñu bala moo ak si ñun na ko sàkkal pexe na nga ko mab bu mu noonu boobu kon bayit bi ñaan ngir mucc ci bayit bi nga xam ne ci moo ci tegee may wakkun la na asiman bayit la xam ne ñaan ngir mucc ci bépp alkande ak ak ak ak ak balaa yi nga xam ne moom la yàlla di teg moom la yàlla wàcc ci àdduna wa najjinaa na nga ñu musal yow yàlla min balaa ya dahr ci balaa yi jam wa kun lanaa bokk la bëgg wax wa kun lanaa asiman wa kun lanaa aasiman na nga ñu musal yow yàlla wa lanaa wa kun na nga nekk bul neex nga teqante baat baat ci ñi ko soxla wa kun na nga nekk di aji musal lanaa ñeel ñu bul boole ko boo boolee wa kun lanaa aasiman mooy firi yow yàlla na nga ñu musal min kulli mahlakatin ci bépp alkande lépp luy alkande yow suñu borom na ñu musal nga xam ne bàyyiwul dara alkande yi diine alkande yi adduna alkande yi adduna alkande lépp loo xam ne bu dalee doomi aadama ak alkande lay ci moom wala ak toroxtaange yow suñu borom na ñu ci musal kon bayit ba am solo la wa kun lanaa na nga ñu musa wa kun lanaa aasiman min kulli mahlakatin wa najjina min balaaya dahr yàlla wa kun lanaa aasiman na nga ñu musal min kulli mahlakatin ci jëf fi alkande wa najjina wa najjina tayit nag ñu musal min balaaya dahr ci balaay jamono ci musibay jamono balaaya mooy ay balaa mooy balaa yi nga xam ne natt yi nga xam ne moom la suñu borom di wàcc ci ci ci àdduna moo xam natt nattu ak ñàkk la wala nattu ak tawati tawati feebar wala tawat yoo xam ne suñu borom da ko da ko wàcc te ñëpp yem ci àddina bépp muy musiba yi nga am mooy virus yi am mel ni ay corona yu demee noonu lépp luy nattu àdduna lépp lo xamne am nax la ci doomi adama ci aduna ji suñ borom yow nag ci musal yallaahu kon wa kullana aatiman aqiman ji musal min kulli mahalakatin ci yëppi alkade wa najina tayit nag ni musal min balaa yaddax ci mucc ci natti jamono ci ci natti aduna wala ci natti jamono yallaahu yow yàlla suñ tubaa bëgg lim ay mbir yu bëri ngir yàlla musal ñu ci ñep wa afatin aahatin maa xussatin mihanin zalzalatin shiddatin walfaqiya allahu wa afatin ak jëpp gàtt-gàtt afatin day nekk maatuuf ci mahalakatin gële ak ci balaaya loolu nag ci ñi jàng nax wala xam naa xëy na Fallou Gueye moom euh, li muy soxla rek mooy ku ko firir waaye ci ñi jàng nax wu xëy na wa afatin day nekk maatuuf ci mahalakatin gële wa afatin ak jëppi gàtt-gàtt aahatin ak it bépp sikk aafa mooy gàtt-gàtt lépp loo xam ne gàkkal doomi aadama aaxa tamit mooy gépp sikk aaxa mooy gàkk-gàkk ji am xam nga aafa wa aafatin mooy gàkk-gàkk yi xam ne day dal doomi aadama di gal di dal lépp waaye aaxa mooy gàkk-gàkk yi nga xam ne am mbay lay dal wala ak jur maanaam jur gi nga xam ne daa am sikk da ngay bay ba si yàgg njéeri njéeri di ñëw wala suuf sa daal di wëlbatiku suuf sa def yëf ah, yooyu la sun borom tabaraka yooyu la Eh, yonent bi alayhi salaam doon ñaan ci xadis ba aaxatin ak sikk maxusatin ak fot fot xam suñu fi bayul dara mixanin ak ay coono zalzalatin ak yëngatu mooy mm, tremble de terre xaw ma ni ñu koy waxee mooy suuf si léegi-léegi ni muy yëngatu xam nga léegi-léegi damay boo xoolee monde bi léeg-léegi dégg ñeen eh, réewum sàngam suuf sa daa yëngatu woon زلزال موي سوس جيك جيك رك سون بروم بوب تيك لو جامي ولا بوب لين خوف ولا بوب لين فاتالي تي تي نتي بكاري بارينا داي لا سك خنا خنا ورنا داي لا كاي داي خنا واخي سون بروم ليغ ليغ مو ييغ مو ييغل سوس نيكو رن رن تلن جيرو موي خنا داي نك بكاري خنا خنا ورنا داي تي تي تي تي دال لا لو ماي زلزال موي ترامبر لي ترا كوم ترامبر دو تير ديفنا موي سوس ييغتو مومن يالله وخني اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها suñ borom ne ida zutit ardu zalaha bu dig ba nga xam ne moom la suñ borom àpp ngir àdduna war caa jeex bu jotee ba suuf si ne rëng rëng rëng yëngatu dem gauche dem droite yi fi tàmbalee mab loolu mooy zëlzala yàlla na ci yàlla musal zëlzala la day am ba suñu jamono ji bu yàgg amoon na Maroc ña fa faatu yàlla na suñu bopp taala xaaral aljanna muy muy tremblement boo xam muy ñu bare bay faatu fa ci ay nit te it day xew ci monde bi lu bëree bëri xew euh, jamono yi ginnaaw amoon na Brésil ak ci Belgique defe naa loolu nag suñ borom léegi-léegi mooy xool moo moo koy tiitlee jaamam bi yàlla bu mu agsi ci suñu dëkk yi zelzala mooy suuf yëkk yëkk yëngatu loolu suñu borom xam nga démb jàngoon nañ ca laaya ji suñu borom wax ne huwa allati ja'ala lakum al arda zalula suñu borom moo ñu ko tàggatal mu taxaw benn place waaye nag ànd ak taxaw gi mu taxaw benn place léegi-léegi suñu borom yi fi day ëpp jaam ñi dañuy bëgg ëppal nag ci fàtte ko ak def ay bàkkaar yu bëree bari suñu borom bëgg leen tëral ak fàttal leen mu yëngal suuf si loo may zëlzala dégg nga suñu nag daa bokk ci muy ñaan yàlla ngir yàlla musal ñu ci musal musal ñu ci musal ñu ci mooy zëlzala googu zalzalatin ak yëngatu suuf shiddatin ak tartar yàlla nag ñuy musal ci tartar wal faqri ak ñàkk yàlla yàlla xoolal bayit bi tudd na ci yu mat juróom juróom-ñetti mbir mbir mu njëkk mooy gàtt gàtt ak sikk ak fot fot ak ay coono ak tremble de terre muy zalzala yengutu ak ak tartar ak ñak yëpp sun sun sun tabar di radiallahu tabaraka taala anhu arda day ñam sun borom taala mu demi kon wa afatin ak sik sik ak gak jépp gak gak yàlla lu ñu musal ci bépp gak gak ahatin ak jépp sik maxrusatin ak jéppi fot mihanin fot moy coono rek fot moy coono mihanin ak ay coono zalzalatin ak yengutu suuf شدة أبو الصرصر والفقر أن يكفي الله يويل يب سنتبان يعني يوصل برم يب من سمرة متدر يلن في في سنتبان يتد بري بري إهانة خلة معذلة غلب وفاقة عتش والجوع الله إهانة أبو الصرخ أبو إهانة مرج جان نحو لا تبو إفعال ما يترخل يلا إهانة أبو الصرخل يلا نجيب نجيب ترخل ما نجيب دايلا أها وهو أهون عليه أكي هينا خلقتك من قبل أن تكون شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين إهانة قوقنا نم بلانك من خروجي نيب نيبوك أي ما صدر ينخرو إهانة يالا يد نجي مسلتي إهانة أكو خلف هام يالا نجم مسلتي نجي مسلتي كوني ترخل xillatin akuk um néew yàlla nag ñu musal ak néew mooy mbooloo mu tuuti mbooloomu mu tuuti ma zillatin akuk um toroxtaange yàlla nag ñu musal ci um yàlla nag ñu musal ci ñuy not wa faaqatin akuk ñàkk yàlla ñu musal ci ñàkk faaq gis nga bay bee ci kaw ñaan na yàlla musal ko ci ñàkk waaye bay bi ci suuf tamit ko yàlla atashin akuk mar yàlla nag ñu musal ci mar mar la mooy la ku nga xam ne mar day day dar doomi aadama yi waaye li mu bëgg ñaan mooy mar moo xam ne la ko waral mooy ñàkkum ndox suñu borom xëy xëy rek di coppe coppe fil yi nekk ci suuf coppe siyaan yi ndox mi nekk ci suuf nga xam ne doomi aadama yi dañuy gas ay teen di di ca dund wala ñuy gas ay mbir yoo xam ne ca la génne am ndox di ca sangu di ca naan ak di ca dund ak di ca naan suñu borom nee na yooyu yëpp moo koy dirigé moo koy dirigé ci suuf mën naa bu ko bu ko neexee day xëy xëy rek coppe ko doomi aadama yi duñu am ndox ñëpp yem nag moom la yàlla wax ci ملك تي مود الله دي فك نيو تاي قل ارئ قل ارئيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين سبحان الله العظيم يلا نينا وين بغين خيو نك سن بوروم كوب في لي نيك سي سوف نخ يالا سي سوف المؤمنون نينا وانا على الله به لقادرون ndox mi ndox mi ngeen gis ngeen naan ngeen ubi rebina fek yeen man nañu xey xey rek da ne ko copy copy gis nga xamne rebina du xel dara du xel ñepp ñepp aduna bepp man ko ci ñak ndox kenn du mën a nam te boo demee ci sootu waaqia foofu suñu borom lay def a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munzilun law nashaa'u ja'alna maanaam ndox mi daal suñu borom daal moo moo ko yor di ko diriger nu mu ko neex subhaanallah azim ndox mi nga xam ne mënoo ko ñàkk bala nga koo xam rek nga woor ndax am na am ndox ngay a soxla ko lépp léegi léegi bala nga koo xam rek mooy léegi léegi coupé ko euh, robinet bu léegi léegi xam ne am ndox mën ta ñàkk léegi nag léegi léegi daa bokk ci nas yi nga xam ne suñu borom daf leen so jaam ñi mooy téye ndox mi ah suñu borom day xëy mën naa téye ndox mi gannaaw nag suñu borom wax na ne moom bu ko neexee rek xëy suba rek coppe balance fii fii lim balance ci suuf yëpp kenn du mën a naan ndox kenn du am ndox mooy dunde te bu ñu amul ndox doomi aadama yi bu ñu ñàkkee am ndox lu mat fukki fan moom mooy faaf nañ waaw fukki fan yoo xam ne ñu koy ñàkk ndox ci naanuñ ko defuñ dara mooy ñàkk nañ seen bakkan kon loolu natt la moom moom la suñu tubaab di ñaan fi nekk wax attaché ni yàlla nag ñu mos a nag ñu mos a ci am mar mar moo xam ne ñàkk ndox moo ko war wal juuci ak xiif yow sun borom nag ñu musal ci xiif yàllaahu yow yàlla sun borom yow nag ñu musal ci xiif mbokk ko ku ne xiif de ku ne xam ne xiif bugg ta wax ne nag ñu musal ci xiif nga xamne do doo xiif nga am naa di lek ni nan ta do xiif mukk déedéet lim dilu moy xiif go xamne ne li ko waral mooy ñàkk ak dund yàlla ñu ci musal lolu musibe la manam musibe aduna nak donte daa bokk ci musiba yi nga bayé way musibe aduna moy ñak ak dund ba mu ni xiif yàlla ñu ci musal ku na xamne ne doomi aadama yi li ñu jëfëndiko di ca dund mooy liy jóge ci suuf mooy gàncax yi jóge ci suuf bu dee ñooy ñooy dunde ceeb kasaalika lépp lu doomi aadama yi di dundee di ko jëfandikoo di ko lekk ngir seen a yaram mën a taxaw loolu mi ngi jóge ci suuf nag suuf suuf nag ay gàncax lay doon nga tax mu daal di mu daal di meññ nga daal koy nga daal koy wax fa nga jaar la ko fa nga bëgg jaar la mu doon xeetu ñam wa nga bëgg mu doon ko doomi aadama ñooy liggéey loolu waaye ka nga xam ne mooy tawal mooy wàcce ndox mi ba pare loolu yëmu ci bi wàccee ndox pare mooy génnewaat gàncax ga xoolal sun bar mena falyanzur al-insanu ila ta'ami inna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا xolal suñu borom nee na may wàcce ndox mi waaye yëmu ci wàcce ndox mi waaye bu wàccee ndox mi pare gàncax gi ni muy génnee kooku moo koy def moo koy saytu ba may mën ci seen dund suñu borom bu ko xëyee bu ko neexee xëy rek tee ndox mi bukan yang kayak dok mi berarti gajah gajah gajah gitu gen bukan yang kayak gajah itu mendar iya gajah kayak lu lihat mungkin mungkin burung kok mereka kuasa tawar ke lebih di ilmu sunjuk akam gim akam nikatan gue kesumbar kepo kamu sunjuk angiri fungir musuhnya ibu diam dan yang aku wajib ya Allah ya Allah yang musuh terkhir kon bayi bisun tu banyak nanti sunbor musuh nanti ag eh, ag ag daya di aku terok aku eh, aku nyak aku mar aku khif kon sunjuk angiri kon tiba-tiba di nyam sunbor musuh ada ak mbir yi muy tànn ngir suñ borom musa ñu mu tekki wa fitnatin wal waba wal harq ma ma garaqin wal barq ma faraqin wal kaddi allah wa fitnatin yow suñ borom nak ñi musal ci jep fitna yu ndax na ngeen baye xel ci naxwu fitnatin day nekk maatuf te min kulli mahlikatin nga ca kaw moo tax fii doo ko firee ak fitna waaye doo ko firee ci wa kull wa kull fitnatin ndax maatuf la wa fitnatin ak jëpp fitna yow yàlla ñu musal ci bépp fitna walwaba ak ci feebar alwaba mooy mooy mooy ni alwaba ni ma ko sax mooy feebar yoo xam ne tawat yoo xam ne mooy alwaba mooy eh, ab naq waaw mooy ab crise mooy ab virus mooy feebar yi nga xam ne yi waaw mel ne ay coronavirus ak yi ne noonu feebar yi nga xam ne day wàlle te day faat doomi aadama yi muy loo xam ne nag jekk noonu la suñu borom li borom xam yeexal mooy ne bisun borom binde aduna ba jamono ji lolat musta tënku jenne jamono wala ci ay siècle bayen siècle déedéet lolou natt la boo xam ne borom dafay su jàmm wal waba ak ak ci ak kris wal xarq ak lak yàlla nañu mosoo ci lak mo xam kiris yi lakk wala ay bagati lak ak lak ma xaraqi nañ ñu nañ ñu ci ak lak ah lolou ki nga xam ne xëy ci géej la waaw waaw euh, liggéeyam ci géej la fa muy sàkk wërsëgam mooy mindeef yi nekk ci géej gi ñoom la fas yéenee rabbu ngir dundee leen kooku nay ñaan sun borom taala ko ci lapp moo tax suñu tubaab wax na ma xaraqin wala ki nga xam ne ci maanaam gox yi nga xam ne fa jëm yo benn yoon la mën a am fu muy jaar mooy ci géej gi kooku dañ ñaan sun borom dañ ñaan sun borom musul ci lapp moo tax mu ne wal a akuk lakk ma xaraqin ànd akuk lapp lapp ci géej nag ñu sa mësal ñun xeet ñun wal baqiatu min lax yàlla ngi musal ci mel lax teg bëgg ta ñaan it ngi musal ci mel lax buy tàkk déedéet ndax mel lax mooy ànd ak taw borom bi nee na maanaam borom bi aw ka sayyibin min as-samaa'i fihi ghulbatu wa ra'du barq kon waaye li mu bëgg xoon mooy mel lax mel lax boo xam ne day ànd gën mel lax boo xam ne day day day fitnaal day lor day lor mindeef ñaare sukk melax yi nga xam ne mooy ànd ak dem lépp loo xam ne daal fitna fi luy fitnaal doomi aadama mi ngi ci wala luy indi lu aw ay aw lor mi ngi ci yàlla ngi ci musal loolu bëgg ñaan ma feraxin ànd ak càcc yàlla ngi musal ci ak càcc bu dee asaraqa bi xam ne da asaraqa wala asariqa mu xadas taagi wala kaddi ak coon yàlla yëpp nañ ci musal mooy nag ñu musal ci jépp fitna musal ci bépp balaa musal ci jépp lakk-lakk musal ci bépp lap-lap musal ci jépp mellax bu ànd ak dënn koy lore ak it musal ci koo xam ne day gàllankoor alal doomi aadama yi waaye nag ñu musal ci coono mu teg ci xarrin wa bardin wa nahbin kurbatin niqamin balalatin arajin wal xammi allah xarrin nag ñu musal ci jéppi tàngoor li ma la waxoon sànq day nekk maatuf ca min kulli mahlikatin ji la ci kaw moo tax mu ne xarrin nañu musa ci jéppi tàngoor wa bardin ak jéppi sedd fekk wu ne laa bëgg ñaan sunu taala bàyyi tàngoor ak sedd déedéet ndax loolu mënta ñàkk doomi aadama nit tabiatul insan ni ko yàlla bindee day soxla tàngoor léegi-léegi di soxla ab sedd waaye li mu li nga xam ne moo koy lor mooy tàngoor wu ëpp suñu borom bu fekkoon dafay bindi adduna bi lépp mu doon tàngoor nga xam ne amul benn sedd lépp tàngoor la doomi aadama day loru te mën nañ cee faat ndax doomi am léegi-léegi li koy saafara na ñoo xam ne leen kazalika nekk noonu bu fekkoon ne daa bind adduna bi bind jant bi kilim bi bu fekkoon suñu borom da koo bàyyi rek ci ak sedd képp amul benn tàng kooku it julli ji bu demee dañu loru moo tax suñu borom ci xereñam gis nga at mi dafa am lu ñuy wax jamonoy été jamonoy sedd ak jamonoy tàngoor moo la yàlla wax ne li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata ash-shitaa'i wa sayf gis nga ash-shitaa wa sayf léeg-léeg nga toog ci jamono boo xam ne naan sedd baa ngi wa ñëw léeg-léeg sedd ba jeex nga ne tàngoor wa ñëw na loolu suñu borom xereñ dëgg gi mu xereñ moo ko waral mooy ñaar yi mooy baax ci dundal suñu suñu borom daa xool moo tax wax ji alxasaali waxoon daanaka te mu jundoon te mu te mu juróon përë bi daanaka boo xoolee ci xarañteg suñu borom tabaraka wa taala da nga gis ne wax ju mën nekk la kon suñu duwal yi ñaan fi mooy tàngoor wuy lore ak sedd buy lore tàngoor wu ëpp boo xam ne day lor ak sedd boo xam ne day ku ne xam ne ni baax na waaye nag day lor doomi aadama fi mu lor doomi aadama mooy boo ëppee ku nga xam ne am na ci ñoo xam ne ba leen suñu borom di leen arak aw aw aw tedd ak sedd la leen arage te loolu mooy alxaqatu ma alxaqa wa ma adraka ma alxaqa kadabat samu ca boo boo boo maanaam ci saar woowu suñu borom leer na ne am na ci ñoo xam ne moom leen arak aw maanaam aw ab sedd la leen arage bi riixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabca layaalin wa samaaniyata ayaamin xusuuma gis nga bi riixin sarsarin aatiya borom bi nee na sa samuud yi ni ni eh, waa samuud niti saalix ya ba leen suñu borom di alak ab sedd la leen yónne ab sedd am na ñoo xam ne baleen leen suñu borom di alak ab sedd képp la leen yónne sedd am sedd boo xam ne moo leen arab ñun ñëpp kon sedd buy alage ak tàngoor boo xam ne arab doomi adam yow yàlla nañu ci mosal wanax bin ak jiir jiir mooy lan ñàkk ñàkk mooy yàlla toolal noonu yoo xam ne dañuy jiir say alal kurbatin ak tiis mooy tiis dégg nga tiis ñaqamin ak mbugal yalla ngi mësa ci yëpp tangor wuy loré sedd buy loré ah waaw mbugu ta ñaan yalla mësa ko tàmboor ndax lolu suñu tu euh ëpp dara muy ñaan lolu waye tangor wuy loré wax xam loré lore tax muy wax ak sedd boo xam ak ku tiss ak ku giir ak lépp li mbugal yàlla ñu si musal dalalatin akuk réer yàlla ñu soosi lépp luy ak reer lu jara ñaan reer ak reer dalala moy ak reer reer subhanallahi alazim arajin akuk laage nga xam ne suñu doo bayiwul dara lépp la ñu am suñu borom mosul arajin mooy ak laage laage boo xam ne suñu borom day moccoo nga day nattoo nga laage laage goo xam ne xëy na dalul la woon waaye nga dem ba suñu borom natt la nga laage nga xam daa bokki xeet natt yi yàlla nañ ci musal wala xam mi akuk njàqar suñu borom nañ musal ci nañ musal ci njàqare waaw boobu tëju nga xam ne da ba am ay njàqare am looy tiit nañ musal ci boobu tëju yàlla yàlla kon bayit bi suñ suñ Tuubaa radiyallahu taala anhu indi fi juróom-ñetti mbir moy tangor wi lore ak sedd bi lore ak jiir ak tiis ak ay ci mbugal ak bu réer kasaalika ko làgge ak it bopp tëju yëpp sun borom taala nangi ci mbugal day ñaan yi borom wa hammatin wa hamma moy li wër euh xeyna da fay da fay defoon man na am nasaxa ba mu nekkon wa hammatin ndax ba de xeyna hamala comme ni na mu lay hamma ndax daa bokk ci daa bokk ci daruratu shiar daa bokk ci daruratu shiar daruratu way ci comme ni ko alimam ibnu jinni di waxee ci alxasaïs moo de eh, fekk loo xam ne des ko waroon shadda nga da koy taxfiif ci booy way waaye loolu xëy na fii du barabam wahaamatin hmm, wahaamatin ak lépp luy am lépp luy borom ak tooke baatul haama daa ñëw ci xadis ko xam xam ne nañ xaama mooy lépp loo xam ne dafa am tooke tey tey mooy rabi àlla yi nga xam ne dañoo am tooke tey lor doomi adama lu demee ni eh, jaan kazalika lu yi nga xam ne daa am tooke dafa daa am tooke mhm. nga xam ne day lor doomi adama fi demee ni alimam ibnu mulaqin day wax ne ci ab tawdix day wax ne alhaama mooy mbooleem ñeg ment ak rabi àlla yi nga xam ne dañoo am tooke وخطايا اك جيب نيومتي خطايا اك جيب نيومتي يالا نيمتا جيب نيومتي دين ضاله اك جيب سانكوتي ولا ضاله ضال دي فير اك سانكو واي دي فير لو خا نده دنجو ريرال مام خاينا دا لا رير زال الترخيص والمسخ اكو صبيك من نانجي مثال مسخ فهم ما يلان masx mooy sun suñ boroom soppi la suñ borom alag la li ñuy wax alag lañ daan wax jamonoy ndaw mooy yàllaa ko alag suñ borom soppi la jox la beneen melokaan ku ñu xam ne doomi aadama ni ko yàlla bindee mooy yaari tànk ak yaari loxo ak ay gët ci ci melokaan ni ñu ko bindee waaye léegi-léegi doomi aadama dana àgg foo xam ne suñ borom dana ko mbugal soppi jox ko beneen melokaan maam soppi ko def ko ak golo wala mu def ko leneen wala mu def ko ak gunóor wala mu def ko ab xaj wala mu def ko leneen ci mbindee fi te loolee am loolu wér la su mat su lu wér la lu sax la mooy nit ñoo xam ne suñu borom da leen alak soppi leen def leen golo nga xam ne ñoom ñu doon ay golo te loolu yàlla nettal na ko ci alquran ba dem surtu baqara suñu borom nee na ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خافئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدا للمتقين gis nga qirada yàlla nee na dafa am ñoo xam ne dañoo tooñoon seen borom daal di jalgati suñu borom wax ak ñoom ba sonn nanguñu jël gannaaw suñu borom daal di soppi ay golo loo ñu wax almasax mooy ñoo xam ne suñu borom da leen soppi ay golo te ay doomi aadama lañu woon waaye léegi ay golo la yuy dox lañ nga xam naan kii golo gi nag doomi nit la woon moo nekkoon bàyyi doog diw subhanallahi alazim loola weesoo bu yàlla suñu borom musal suñu tubaab way ñaan loolu may almasax dégg loo sax la lu wér la ànd ak loolu lépp nag am na ay gëstu ànd ak lépp nag am na ay ñoo xam ne dañuy woote woon ay scientifique lañ benn benn anglais benn anglais boo xam ne bind ci téere wax ne doomu aadama golo yi nga gis nii doomu aadama woon muy tuuma jërëjëf yoo xam ne da ko da ko tuumal monde islamique yëpp muy yéefa bi gil bi la woon muy lu muy muy lu doy waar waaye ala kulli wal masxi ak soppis bind masx mooy loolu dégg nga suñu tubaab nee na wal xas bi Euh, ak gaaw yi ko suuf alxas dinañ ko leera tey ci la ñuy tàmbalee alxas xas mooy lan xam naa waxut xusuuf xas la wax bu doon xusuuf ñu wax xëy na mu luñ jublu li ci mooy jàpp jant bi fii mooy lan mooy suñu borom xar suuf si dugal ci doomi aadama yi ngir alak leen loolu mooy alxasfu yàlla ci yàlla maanaam suuf si nii mu fattee nii suñu borom jekki-jekki xar ko wenn ngàll ak ak boor ba muy xar ngir doomi aadama yi nekk foofu daal di dugg ci biir ngir mu tegewaat wala sa borom yëngal suuf si wëlbati ko doomi aadama yi mujj féete suuf la ne la féete won suuf suuf daal di féete kaw yëpp day dugg ci baatu al alxasfu da bari ay maanam des na ko leeral mom la yàlla wax ne a amintum man fi samaai ay yaxsifa bikum al ard fa idha hiya tamur am amintum man fi samaai ay yursila alaykum haasiban fa sataalamuuna kayfa nadhir kon al alxasfu moy sun borom taala xar suuf si doomi aadama yi ne wala ca biir mu daal koy tëjaat loolu alag alag yoo xam ne sa borom alag alagoon na ko ay nit yàlla boo demal suur ruqatu nee na fa xasafna bihi al ard waaw qaarun xam nga bi mette qaarun nga xam ne inna qaaruna kaana min qawmi muusa fa baga alayhim wa aataynahu min alkunuusi ma inna mafatihah la tanuu bil usbati ulil quwa gis nga waaye bu gis nga te mujj lu yàlla wax fa xasafna bihi al ard yàlla ne qaaruna ba ma koy mbugal dama xar suuf si mbir bu ca biir ma ne rappat suuf loolu nag mbugal la boo xam suñu borom ngay mbugal ay jaamam yàlla yàlla musal ñu si wala suñu borom léegi-léegi mu du xar suuf si waaye jëmi suuf si lay wëlbati la féete woon kaw féete suuf doomi aadama yi ne wal loolu mbugal metti metti la moom la suñu tuwi di ñaan fii yàlla musal musal ci xeetu yonent bi alayhi salaam yëpp wala masxi ak soppiku su mbind wal xas fi ak waxas summa al xas bi topp ak télé yàlla yàlla al xas fii dafa jë al masx wax naa li muy firi mooy yàlla soppale ci mindi ci ci melokaan yi nga nekk joxe beneen melokaan alxas mooy sa borom xar suuf si ngir mbugal la ci ga gaaw yi suuf ci sa kaw muur la suuf si alxas si nag summa alxas si mooy xas bu mooy télé gi mooy lan mooy télé ci wàllu xëy na tey doomi aadama doomi aadama ñi leen yàlla bindee mooy doomi aadama ñi sun borom bindee doomi adama yi yàlla da leen bind ñu nekk ñaari xeet ومريالو هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كي شن برضو يبين منك يعني خذ بودي بيجي صرف العم صرف الجال وقت ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتلا وخلقناكم أزواجا ما رم أجورك جيجل شن برضو من من دم آدم أتمنى ترى أدنى بي أتمنى بي أكون جنسا شو موجي جور فو منتظر ممدن وايري أجا وو كذلك نا كان خا نمم لا نيك سي ادنا موي جيجين كذلك جيجين دي ادي بو غور دو ما تخ سنبام داري يونال لي ني واخ النكاح موي تاي سي بوبو دا بوك سي اوبجيكتيف يا موي ام فا اك نجبوت لكن نك القذف ا آه، داي ام نياري معنى لي لي القذف داي فيري كوم بري سي لاكين عرب داي فيري مانام نيت بو فكه دا جوتي اك سخنام dafay gisee ak soxnaam jamono ji nga xam ni maanaam ndox mi nga xam ne moom la suñu borom bind ci moom nga xam ne moo war a génn dugg ci biir soxna fi suñu borom am fu mu ko denc ngir defa ci doomi aadama foog na ko yàlla di waxee ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين gis nga في قرار مكين nekk dem jigéen ci biir bi am na ci bërëb boo xam ne fa la suñu borom di denc ndox ma nga xam ne moo bawoo ca buur ga gis ko ci soosu taarix mu ne eh, kay yaxruju min bayni sulbi wa taraib gis nga day génn ci ndigal góor dugg ca jigéen jamono ji loolu génn loolu ñu alqas bi dégg waaye nag léeg day firi ak télé léeg ñu firi télé may koo xam ne xëy na daa télé ci wàllu na da da maanaam daa télé ci eh, buy gis ak soxnaam day am ak télé moo xam day tële ci eh, nit koo xam ne yàlla da koo nattoo day gaaw a sànni la mu yor ci ndox wala mu tële ala kulli musim daal alxasr moom daa bëri ñaari maana yi ci bëri daal suñ xam na doomi aadama yi ay gàllankoor xam ne day doomi aadama yi suñ tubaa daal ñaan sama taala yàlla mu tëgg mu nit ñi kon sama xafi topp ak téye yàlla yàlla ala kulli loolu yëpp suñ tubaa da ñaan fii وغلة مع جنون علة مرض ثم الجزامين والنقصان يا الله وغلة أكوك مر مرون خندون باتو غلة دا جنتل اي معنى بيفير أن مر تلاتين أرب مرون خندون دين خامنا تيجي ناو نيانو نان مر وي دوكو باموات مفكيني غلة غلة دا بيفيري مرون خندون مرون خندون نبيل جوخي مر مكة مر مطارطة بوكتا العطش خلي عطش مي مرني رك xëy na mar nga mais mën nga koo mën nga koo téewaale ba diir bi yàgg taloon na waaye xul la nag mooy marum métti métti mooy amal la ñu xam marum xanduñ nga koy firi day firi it ak tëju xul la day firi ak tëju donc maanaam it ci nekk jantal na euh, ak wa xullatin akuk mar ma junuunin ànd akuk ndof ak ndof yàlla yëpp nañ na nañ ñu ci musal illatin ak rag-rag dañ nañ musal ci rag-rag maradan ak xeebar rag-rag ak xeebar daanaka benn la xummal jusaamay ni ak it xeeti ngaana ya ñaari ngaana ya dégg nga mooy ndoxu siti ak ngaana tawati ngaana wala ndoxu siti feebar yooyu wan nuqsaan ak wàññiku wàññiku ci yaram wala wàññiku ci ak mbir wala ñu wàññiku ci wërsëg ci mbir mën doon yàlla yàlla yàlla nag ñu ci mbir yëpp ñu musal ci ak ndof musal ci ak rad musal ci ak feebar musal ci ngaana musal ci ndoxum siti musal ñu ci feebar lépp tawat ya nga xam ne doomu aadama yëpp nañ ci musal ci gàttal daal suñu tubaab daal tënk li mu waxoon lépp daal ne wa min qabixati dunyan summa axiratin wa min fuduxihima yallahu yallahu wa min qabixati dunyan ak ci bon boni adduna summa axiratin ak bon boni alaxira wa min fuduxihima ak gàcce yi adduna ak alaxira yallahu yow yàlla yallahu yow yàlla bay bi suñu tubaab day wax ne yàlla ñu musal ci bon boni adduna ak bon boni alaxira gàcce ak adduna ak gàcce ak alaxira yow suñu borom nag ñu musal ci bon boni àdduna ak ci bon boni àllaaxira nag ñu musal ci gàcceeg àdduna nag ñu musal ci gàcceeg àllaaxira naam wa min qabixati dunyan ak ci dunya day nekk mudaaf su neex nga wa min qabixati dunya ba tey arut bi day day yëpp ndax ñaar yëpp day nekk day nekk ak sukkoon boo xam ne kon wa min qabih gis ngeen ci bon boni adduna nañ mosu ci bon boni adduna summa axirati bi ak it ci bon boni alaxira wa min sabxima ak ci gàcceg adduna gàcce alaxira yàlla yàlla kon xasida bay bi suñu tubaa day ñaan borom tabaraka wa taala kon la ko tàmbalee ci la ko tàmbalee wa wa kun lana asiman yëpp suñu tubaa day ñaan yàlla mosañ ci mbir yëpp kon lu jara ñaan la ñaan la boo xam ne ku suñu borom nangul rek mooy yëpp yow pare nga ci mucc nga ci suñu borom tax taala musal na si yàlla ñu yàlla mucc ci mbir yëpp nga xam ne ay notas boo ko defee kon foofu la ñuy taxaw ba beneen yoon ñu ñëw tàmbale ci yaa man ala kulli shay'in qadirun wa alal arshil azim istawa bil qahri allah foofu la ñu dalee di yeexal xas dëgg ak jàmm insha allah wa hada al qadru kifaya wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu ngi lay ñaan nga bës fii ñu bind jëm bu fekkee gande si chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind s'abonné après nga activer cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat yii nii si commentaire yi lii nag ci di nga jot jangan jauh